am solo moy que concours général ñu xamné que élève terminale ak première ñokoy def donc rel nak mën nañu wax né organisation bi wax dëgg yàlla concours bi biñ ko commencé biñ ko tambalé ba tay dañ ci am satisfaction amu ñu fi benn problème et sujet yi également niveau difficulté bi ñu doon am am nañ ko doon aussi waaye pour é é que eu mën a participer si geral. il faut que si sa classe nga moyen moyenne 12 douze sur vingt la et si matière bi nga jël nga au minimum quatorze sur vingt prix yi nag bëri na am na ay trois prix premier prix bi il faut nga am sur vingt deuxième prix nga au minimum quinze sur vingt troisième prix nga quatorze accessible yi sur vingt deuxième accessible douze sur vingt waaye depuis daaw kenn du def classement établissement yi parce que du ñu benn nga am établissement bu am 9000 élèves beneen boo xam ne élèves yu bëriwul conditions yi du benn donc établissement du ñu leen classé. li ñu mënta wax rek mooy que participation bi ren day mel ni comme bu daaw bii la bien que 12 novembre la ñu commencé parce que candidat yi ñaari junni ak téeméer ak fanweer ak ñaar la ren.

a 107 distinctions, il ci 55 prix ak 52 accessibles. mën nañu wax également que première so jëlee première am nañ ci 13 e pour le privé l'eau. fukk public la won terminal fanware public 14 yi donc privé. donc concours bi mën wax concours général 97 lañu am lauréat. 40 et ay jigéen et 40 ñu fi ay garçon donc mën avons wax ne en tout cas seet bu les résultats surtout que nous avons am directive boo xam ne que nañu fexe ba science ak technique euh, ñu orienté suñu enseignement apprentissage donc mën nañu wax am nañu parce que a les élèves de di def scientifique si nombre lauréat yi 51 yi c'est 97 51 sciences ci seen biir sax ñii di def série S1 ñoom ñoo am 34 lauréats donc loolu lu am solo la donc et ñooñu sax non seulement ay scientifiques, lañu waaye am nañu sax ay prix ay accessible ci série yoo xam ne du ñu série scientifique mooy série littéraire. donc mun nañu wax ne meilleur élève ren ci concours général ren mooy Ndeye Awa Sarr élève la boo xam ne mu ci première S2 ci maison d'éducation Mariama Ba nous ñu aussi yoo xam ne ñoom kooku mooy élève polyvalent yoo xam ne am na ay yu bëri mademoiselle encore toujours première essence, ci maison d'éducation Mariama Ba ren nag su si le 19 juillet le 19 août la ñu nar a cérémonie bi ci grand théâtre comme fi ñu ko doon defee et président de la république moo koy jiitu suñu paree ren mooy professeur la boo xam ne mu ngi woon université ñëpp xam nañ ko. moo nekkoon recteur nekk fa président académie moom mooy Souleymane moo mooy parrain bi